gargam gargam weer wi nga xam ni weeru barke la weeru yërmande la weeru njot la ca biir safar weeru promotion la weer la woo xam ni boo tëddee di nelaw sax am tiyaaba kon bu jógee ni dafay jóg nemmiku la seet si la ziyaare si la sàkku si ñaan ci yow ci réew mi d'abord li muy ñaan loo mooy nga ñaanal réew mi di Sénégal yàlla dolli fi jàmm ak dal ak sutura ndax lu mu doon lu ne moom Idrissa jiital na jàmm ci loolu lu muy am lu ne itam jiital na am ko ci jàmm kon moo tax mu njëkk a sàkku ci weeru barke wii ak ëtt bii nga xam ni sabaaru dugg foo bañ mu ruusagul ko fa wàcc fii ñëw naa fu ma xam waaye moom mii njabootam gii xam nañu fii kon loo mi ngi sàkku ñaan nga ñaanal senegal xar kanam nga ñu xamee woon senegal te mu bëgg a naax saay nga ñaanal ko loolu dellusi si ñu xam ni réewu dal la réewu jàmm la réewu sutura la gannaaw ba loolu wéyee coalition Idy 2024 bii ñoom ñëpp ñu àndandoo jël seen kàddu jox ma ni nañu la wax nga ñaanalal leen yàlla président sa Seck bi mu doon cinquième président de la République waaw lan moo tax ñu koy ñaan danoo am yaakaar xam ne moom bu ko yàlla dénkee réew mi li nu bëgg ci réew mi incha allahu dina fi am ndax li nu ko jot a dégg mu jaar ci moom ku ne gis na nam ko def moo tax ñuy sàkku nga ñaanalal ñu ko yàlla ba yaakaar yi réew mi am ci moom nga xam ni àdduna bi yëpp ñoo ngi jël seen bët teg ci moom di ko xalaat di ko ñaanal waaye bu la ñëwee ci ñaanukaay bi ci weeru ñaan ñu fekk la fii nga wex tal ñu ngi sàkku nga ñaanalal ñu yàlla may ko ndam mu doon ndam lu seddu guyu ba mu mottali yéenam ci biir lii loo mooy kàddu yi nga xam ne mom le président yëkkati won tek ci sama lox coalition ak bokk yi nga xamni ni yalla ar ko mi def limi def ci sago yalla jàppale ko ci te may ko jëndam lu rafet suñu borom man nako barke bi sëriñ Tuubaa Amin.